leader bi nga xam ne nii euh, saa su ko tolluwaay réew mi rek laajee ñu ñëw ak yéen ci ay jootaay yu am solo jotaay yooyu nag moom moo tax tey ci ñu am mbégte gu mag a mag di nar dalal ci plateau bi koo xam nii foog naa ni kenn dootu ko présenté ti ci réew mi euh, li ko waral nag moo di taxawaayam bu am solo bi nga xam te nii am na ko ci lépp loo xam te ni jëm na ci wàllum euh, doxalinu politique waaye tamit ci lépp loo xam te ni jëm na ci wàllum yoon ki may bëgg a wax nag moo di maître Abdoulaye Tall nekk porte-parole parti bi ñu duppee PASTEF waaye tamit moom avocat la fële ca euh, tribunal bu Ndakaaru maître maa ngi lay nuyu di amati mbegte gu mag a mag euh, sekk ak yow jotaay fii ci Sénégal 7. waaw maa ngi lay fay ma joon mm. di wax ni mbegte bi si man la ëpp. Mm. ma ñëw si xaat ak yow waxtaan. Mm. c'est vrai du gan ci dëkk si kër gi. dëgg la te yaakaar naa ba may dugg wane naa ne du ma gan ci kër gi. <laughs> dëgg la waaw kilifa kër gi mooy sunu mag. Mhm. Pape Ngañ. Mhm. di ko nuyu di ko sant di jël nuyu teg ko si loxo mu tasaare ko waa kër gi yëpp. Mhm. waaye tamit nga may ma ma nuyu sénégalais yi. ñu ne si biir réew mi comme bitim réew. di nuyu waa Afrique nuyu àdduna bi yëpp nga xam ne jamono ji jël nañ seen i gët teg ko Sénégal. pour di xool fi dëkk bi jëm. parce que lëndëm bi muy traversé waar. di leen nuyu di leen sant di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek nekk njariñ ci Sénégal nekk njariñ ci sénégalais yi. d'accord te euh, lu fi tukki si lu baax rek ñu xam ne yàlla suñu borom la bu amee rëq-rëq tam ñu jégal ñu ko. Mhm. par avance je vous remercie. jërëjëf maître mu nekk lu am solo euh, ñu daal di nag euh, samp li nga xam te ne moom moo nekk ponk yi ñu a waxtaanee tey. bokk na ci fële ci université bu Cheikh Anta ginnaaw ji nga xam te ni reposé waat nañ pour la énième fois li nga xam moom moo nekk ubbite gi euh, ginnaaw loolee aussi li jëm ci wàllum politique xam ngeen ni euh, élection présidentielle yeeg collecte fiche parrainage yeeg euh, loole yëpp incha allahu daañu ci ñëw ci anam ba mu gën a yaatu wàllum justice aussi euh, ki nga xam ne moo nekk seen leader di Ousmane Sonko dégg ngeen xibaar yi nga xam te ni tey fës na tukkee ci avocat bii di maître Ciré Clédor li ni Ousmane Sonko bëgg-bëgg mooy delluwaat fële ca nungu siin nga nekk foofee ca Sébikotane loolee yëpp daañu ci ñëw ci anam mu leeree ndax ki ñu am tey foog naa ni mën na caa addu te aussi voix autorisé la alors tey jii euh, ponk bi mu ko wax léegi euh, bu ñu ñoroon njëkkee moo di bi mooy énième fois ñuy repousser li nga xam moom moo nekk ouverture université Cheikh Anta Diop euh, lu ni mel yow en tant que kuy bàyyi xel tolluwaay réew mi nan nga ko jàngatee. waaw euh, di ko ñaawlu. mënuma hmm. ko rafetlu. Hmm. te d'ailleurs si Sénégal léegi ngay dégg lu mel noonu. Hmm. te dama ni sax li tàmm la am Sénégal kon bu fi amee guléet la. daan nañuy dégg nag report wu rentrée scolaire. rentrée même universitaire mais ay une semaine la daan doon. maximum dix jours. kon tey ji bu demee ba fi ñu tuddee ni mooy. xam-xam foofu la ballee foofu la xala xam-xam siggee pour jariñ nit ki jariñ réewam jariñ ëllëgam ñu ne la repoussé nañ ko pendant soixante jours encore gannaaw bañ ko njëkkee dàq mhm. loolu daan day tey xel mais li ma si gën a ñaawlu mooy ñi ko def di jël décision yi mel ni di toog si seeni seeni salon di toog si seeni bureau climatisé muy neex di sedd mhm. jamono jooju seeni doom ñu nga bitim réew si université yi gën a mag ci àdduna bi ñi ngi Canada ñi ngi Paris ñi ngi États-Unis doo fu mës a dégg ñu ni reporté nañ ay rentrée universitaire dëkk yooyu ñu yóbbu seeni doom mhm. daanaka seeni avenir mën nañ assurer nañ ko si jamono jooju suñu université bi ak li muy traversé di difficulté jamono ji nga xam ne capacité d'accueil bi di ñaa ngi koy joxoñ baaraamu tuuma mhm. naan ñi am bac ñëpp mënuñu faa dugg ba mhm. ñenn ñi sax di orienté wu ci privé bi jamono jooju étudiants yi gis ni seen ëllëg foofu la déparé seen avenir foofu la aju tey jii ñu ngi leen di xañ li nga xam mooy xam-xam ñu ngi leen di xañ li nga xam ne seen droit la à l' éducation loolu nag bu amee du ñu def lu dul ñaawlu ko mais bi si ëpp solo bu ëpp si solo. Mhm. mooy Mandione université. Mhm. dañ ko war a aar étudiant dañ leen a war a aar. Mhm. waruñoo nangu ngay taafantaloo contexte purement politique. contexte purement électoral pour repousser université au contraire pour man élection yi jublu. dafa waroon nekk occasion pour ñu gaaw ubbi école yi pour ñu gaaw ubbi université yi pour sensibiliser davantage les étudiants rawatina ñi nga xam ne ay étudiants te nekk université la plupart à 99 pour cent dañuy voté. Mhm. dañuy nekk en âge de voter parce que à l'âge de 18 ans rek déjà war nga mën a voter mhm. te ñenn dëggu université 18 ans jëm kaw la. Mhm. kon lii bu amee université fa waroon ne ko occasion wala moyen wala facteur wala prétexte bii tax. ñu gaaw ko tijji pour étudiant bi ñu mën a wax ne que enjeu yi lii la si wàllu élection yi ba nga xamante ne day porter message boobu bu ëllëg bu demee si li nga xam ne mooy gox ak goxaatam mm. dina mën a porter les messages de sensibilisation pour wax population yi nga xam ne comprendre ñu ni ñuy voté lan moo war a nekk enjeu électoral bi lan moo war a nekk li nga xam ne moo ma nekk choix yi nga xam ne c'est des choix utiles étudiant boobu war na si mën a war na si mën a jàpp comme ni si moodu moodu bi nekk si diaspora bi mm-hmm. bi nga xamante ni day day day day xool li am ci bitim réew mm-hmm. bëgg mu am Sénégal te ci muy lu baax am jeextal bu baax mm-hmm. kooku kon war nañ ko may mu université dee la tijji mu dem jël fa taatan fa xam-xam mën a dellu ci dëkkam pour mën leen a jariñ hmm. kon tey jii su ma gisee ñuy taafantaloo ay politique te lépp Ousmane Sonko moo ko indi moo indi tey université bi ñu taxaw di ko repousser ba mois de janvier parce que bu ñu ko defaatee 60 jours kon novembre moo ci tegu ak décembre kon mois de janvier. Ousmane Sonko ban rapport la am ci tëjute ak tijjite université. waaw dama ni ñun ñëpp ay xel lañ yor di xalaat Ousmane hmm. Sonko li mu war na dafa am ci tey ji Ousmane Sonko war na. changement yi di am si magistrature Ousmane Sonko war na changement yi di am si ay ay si collectivité territoriale commandement territorial maanaam préfet sous préfet Ousmane Sonko tax na tey jii université étudiants yi di di di di di di. mais nan ci nan parce que. ci nan quoi bu ñu nee contexte préélectoral la. xam contexte préélectoral bi tey jii kuy wax contexte électoral préélectoral Ousmane Sonko mënoo ko ciy génne. tey jii kuy wax organisation des élections tey jii bu Sénégalais yëpp sëngéemee. ñëpp tey seen xel am ay jeexi jaxa c' parce que dafa am ko tudd Ousmane Sonko koo xam ne ni plus de 3 millions de sénégalais ñu ngi bëgg a taxaw pour voter ko ay nit taxaw ne doo bokk ci élection tey dem bay bëreeg sénégalais man di xeex ak sénégalais. boo waxee loolu mën nañu d'accord maître mais aussi tamit. waaw loolu la loolu aussi foofu daara ju ñu exemple bu ndaw. Mhm. yaakaar naa amoon na fa ay jeexi jaxa yu fa amoon tey jii bañ jàppoon ci ay étudiants mhm. pourtant dañ leen dëkkale Pastef tey ji euh, université amoon na ay yëngu-yëngu bañ ne am na si ay yàqu-yàqu ma koy ñaawlu parce que lu mel ni université yaakaar naa kenn mënta rafetlu ay yàqu-yàqu di fa am rawatina ñu naan ay bibliothèque universitaire laal nañ ko mais tey ñi ñi taxaw di jàpp ay nit fan lañ dëkkale ñi ñu jàpp dañu si Ousmane Sonko lañ bokk ah mais gis nga vidéo yi non dama ni gis nga ñi ko taal après taxaw jàkkaarloo xam nga kut bi di ni à net qui n'est gis nga faut pas tomber dans le piège des réseaux sociaux ou le piège de la toile. tey jii nit mbubboo na sax bokk naa si Ousmane Sonko di saaga kilifa diine te bokkul si ñun. nit mbubboo na bokk naa passif di teg ay ket kàddu yu ñaaw te musta bokk mhm. dañ koy dëkkale passif te pourtant ña ko def. pouvoir des fois wala parti au pouvoir ñoo leen di ngemb di leen jox xaalis pour ñuy di def loolu pour ñu mën a. indi ay gàkk-gàkk si deru Pastef wala deru Ousmane Sonko wala deru militant Pastef moo tax ma la bul tombé ci pièce boobu li am solo ba am solo rek mooy mhm. ay mbir am na fi fan feneen sax fudul université ay mbir am na feneen foo xam te ni jotewul la dara pour pourtant gis nga ñu jiñ ko Ousmane Sonko tey jii dem na ay nit ba dugg ci kër këru diine yi li ñuy wax naan ay Pastef dañoo tontu tarix ak Pastef dañoo contre Gàmmu ak Pastef ba Ousmane Sonko ànd ci di wax ne ñiy wax loolu en réalité système bi moo leen yónni rek c'est les du pouvoir pour effectivement faire dans la diabolisation et dans la persécution et dans le dénigrement d'accord pour wax la rek ne la loolu Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar waaye li am université si gàttal warta am université université étudiante yi ñu war a tijjee ñu dem jàngi parce que damay wax ne élève da nga koy imposer yoon élève wala maître da koy imposer mais étudiant hmm. mooy xool yoonu boppam si encadrement ak ay encadrement professeur. kon kii xool yoonu boppam. pour hmm. tekki ëllëg kooku da nga war a yombalal lépp. guleet Sénégal ma dégg fu mel lu mel nii parce que en réalité contexte électoral wala contexte pré électoral moo ko war. d'accord mais mu nekk lu nekk en jeu. d'accord maître c'est bien ma dégg la tey nga ñaawlu la ñu taale woon université bi mais bu ñu fàttale ko ci ginnaaw ba ñu taalee université du benn leader bu bokk ci yéen boo xam te ne dégg nañ ko mu naqaru lu ni mel tijji tëj nañ université bañ koo tijji ngeen toog ci ay plateau di ko naxar loolu aussi nan lañ ko mën a comprendre. non non non xam nga man Ndione cest foofu yow yaa juum. ci nan non dama ne la foofu yaa juum. man la dafa def di yow rek yaa fi organiser plateau te naa ci beneen plateau ak beneen plateau wax li nga xamante ni man moom laa gisee ci réew mi ak yëngu-yëngu réew mi li ma dul nangu nag mooy. Mhm. dara am ci yëngu-yëngu ñu taxaw ne di ko dëkkale fenn pour persécuter un parti pour pour diaboliser un parti politique man loolu laa dum nangu tey jii dara am jamono ji ma taxaw di ko ñaaw la nga ne ma man maa ko waral wala samay doom ñoo ko waral wala sama njaboot ñoo ko waral en tout cas dinaa dina tax nag ma teg sama tànk fenn pour déglu xool ràññeete ràññale pour mën a effectivement xam li may wax ak sénégalais yi mais du ma tombé dans le piège de la communication ba ñenn ñi di am fu ñu ma dëkkale ma ñëw topp mbartal bi topp tarxis bi bay wax loo xam ne aju loolu laa la wax ne la Pastef mosoo ko dégg mu encourager la violence Pastef mosoo ko dégg mu encourager la casse Pastef mosoo ko dégg muy def dans dans la diabolisation. mais dafa mel ni kon kon beneen Pastef. non dama ni dafa mel ni beneen Pastef na may wax. voilà peut-être loolu sax du débat bi. non si du débat la mais li ngay wax ni dafa mel ni par contre bu fekkee vous avez le courage de vos idées. Mhm. xam nga ni yow yow Mandione. bu fekkee mhm. am nga courage sa idée xool ce qui se passe au Sénégal. Mhm. au contraire Pastef en est victime. en est victime et de façon ostentatoire gis nga ni. Pastef mooy parti bi nga xam ne moom lañ diaboliser Pastef gis nga moom ba parti bi ñu persécuté tey jii lan moo gën a métti ci persécution lu mel ni dissolution lu gën a métti dissolution si ñoo xam ni dafa am lu ñu lu ñu judd ñu tabax ko ba am fu mu jëm jëmmal ko ba Sénégal gis seen bopp adhésion massive di ci am tey jii bracelet bracelet Pastef muy le bra le bracelet de la de la démocratie et de la liberté gis nga tey jii di mu demee ba dugg si si ADN Sénégalais yi. mu dem ba am na ñoo xam ne bu ñu takkul bracelet sax dañuy jàpp ne ñoom seen voilà nekkuñu comme ni ñuy takkee montre. Mm-hmm. pour wax la rek na la ñun foofu lañ toll woon mais de l' gis ngeen ni li ñu daj mais teewul. Mm-hmm. heureusement lay wax. alhamdulilah ba nga xam ne suñu mission ak suñu discours dugg na si dans le cœur des sénégalais dugg na dans la dugg na dans ba nga xamante ni parti bi ku yàppoor ni benn bâtiment la wala benn këyit la da ngay nax sa bopp en réalité pas-pas bu dëgër pour sujet li nga xam te ni moom moo soxal wàllum la ñu repoussé université ouverte université xam nga ni yel xel la ni maître Tall que ni autorités yi neexu leen rek ñu ne duñu ubbi université bi yow fàttali nga ko léegi ne am na ñu ñu tuumal na ci yéen la ñu bokk ñoo taaloon université bi te ci defaraat gi la ñu nekk donc joxe nañ ab diir pour ñu defaraat li nga xam ne nii tuumal nañ yéen a ko taaloon pour ñu defar ko loolu moom mooy loolu excuse yi. léegi explication yi. dégg pour xamal pour xamal ne loolu ñu joxe si prétexte. ak justificatif du dëgg. dama la jox ñaari exemple rek. Euh, Sénégal ñaata école ñoo lompoñ. si hmm. mbënd mi. am lu bari lu fa yàqu ba élèves yi mën a ñëw jàng te pourtant école ba calendrier bi jotee dañoo dem tijji. dem jàngi loolu benn la ñaata parce que université enseignement universi euh, enseignement euh, supérieur la. Mhm. tey jii ñaata institut ñaata école privée ñoo dem seen i étudiants ñëw nañ inscrire nañ commencé nañoo jàng. te mhm. pourtant seen i yi nga xam ne ñoom ñoo amando bac. tey jii ñu ngi xaar mois de janvier wala mois de février pour mën a pour mën a dem kii pour wax la ne la prétexte yi c' est des prétextes fallacieux c' est des qui ne sont pas du tout fondés. Mhm. pour ne damay repousser xam nañ li tax ñu def ko Ousmane Sonko moo de ce changement de dispositif et de ce changement de programme. xanaa non non xanaa da nga njort ni. non étudiants yi ay ay ay. non dama ne pro Ousmane Sonko lan. Ah, te dañuy yëngal moo tax. non non kon kon bu fekkoon pro Ousmane Sonko yëpp a yëngal kon dëkk baa ngi yëngatu. Sénégal à 80 pour cent ay pro Ousmane Sonko fi nekk te loolu je pèse bien mais moom man maa ko wax. foo ko teg Sénégal dama ne à 80 pour cent. ci sondage ci gisaane wala ci la xoolal Sénégalais yi Ousmane Sonko moo ci nekk. tey jii su ma juumale woon sax yàlla Ousmane Sonko la àndal pour wax la rek. non maître maître yaa ngi abusé ah je l'assume dama ni li la wax ni je l'assume dama ne yàlla Ousmane Sonko la àndal parce que yàlla dëgg la àndal Ousmane Sonko si dëgg la nekk te yàlla ñi àndal yàlla mooy alxaqu alxuraan mooy alxaqu mooy dëgg yàlla mooy dëgg kon jàpp nañu yàlla Ousmane Sonko la àndal loolu dama koy wax e je pèse bi et je xoolu Sénégalais yi dama ne su ma juum ne quatre-vingt-dix pour cent Ousmane Sonko lañu àndal lan moo tax tey jii ñoom ñuy rey seen bopp pour Ousmane Sonko bañ a bokk si élection yi dégg Ousmane Sonko la àndal te ñoom ñëpp ñu ngi toog seen kër yi Ousmane Sonko nga fële ca Ndungu Sine mais loolu nan lañ ko mën a comprendre Macky Sall bañ koy fal en 2012 ngi toogoon seen kër pourtant ñoom ñëpp xoolu Sénégal 65 pour cent moom lañu àndaloon dem dañoo wax naan 90 pour cent de la jeunesse moom la ñu àndaloon da nga see gis kenn ku génn di am nga fan la dañuy hmm. nangu ndogalu yàlla mbir mi xam nga fan la nañu nangu li yàlla dogal dogal ko ci nit ñi Ousmane Sonko yàlla moo ko def mu nekk mbindeef boo xam wàcc na si askanam am fu mu taxawee askanam gis seen bopp yàlla ànd ak askan wi pour jëmmal askan wi non seulement ci biir réew mi mais également jëmmal Sénégal pour bitim réew tey Sénégal damay am kersa sax gis façon bi fiy dox waa bitim réew ni ñu koy xoolee bëri na Sénégal yi jamono ji li xew ci mbënn mi ñuy fuir ay mbëkk mi daw ci mbëkk mi nit ñi di fuir si mm. mbëkk mi nit ñi di daw xam naa ci bu baax parce que dafa touché fi nga xam ne foofu laa dëkk muy mbuur fi ma juddoo mm-hmm. xool tey jii ñu ne la Bargny Kayar euh, euh, euh, nu mu tuddati Fass Boye mm-hmm. Diogo mm-hmm. nga dem Saint-Louis nga dem Euh, Caaroy léegi Ziguinchor nga dem Joal nga dem mais ñoo joor dëgg naa desetul xale bu góor ñëpp dem nañ mbëkk yi te li si garaaw léegi xam nga bu njëkk ba xam nga mañoon foofu dama bëgg nga teg fa tuuti sa loxo parce que mhm. Mhm. bu njëkk ba c'est vrai ay xale yu góor ak ay yenn pere de famille des jeunes mariés ñoo daan dem di braver les les les océans avec à travers les embarcations de fortune mais tey jii xoolal léegi mbëkk mi ay xale jigéen mm-hmm. de jeunes mariés ak ñu ànd ak seen i doom seen i njaboot am na ñoo xam ne nii yàlla def sax dañuy war na lor mm-hmm. ci biir gaal gi la ñuy accouché tey jii ñoom ñooy dem di fuir la Sénégal parce que lan dañoo am jeexi jaaxa seen dëkk xàmmeetuñ seen dëkk dañoo am tiitaange seen dëkk le Sénégal est devenu un pays qui n'est pas du tout sûr parce que y a y a un problème dégg naa ñu naan jafe-jafe Ousmane Sonko nekkee moo tax nit ñi wala xale yi di daw di génn réew mi loolu looy partagé la maanaam maanaam xam nga amatuñ yaakaar ci réew mi non non processus bi xam nga processus la